kon nag ko sant yàlla. Mm-hmm. mën nga ko mën nga leen nag orienté nag waaye nag li li ñuy def moom ñu ngi ko tëral ci li liñ bëgg kon nag ñu ñu dem itam nañ nekk ñu civilisé nekk ñu am sa euh, euh, kattan ci defal bàyyi ndax bàyyi ku ko defal benn mu fay la lu bëree bëri yàlla ñu yàlla. gën a yokk ku ca ñëw saa yoo ñëwaan da nga uh, dara ren nag moo raw maa ko garanti ku ñëw tey ba boo fa amul li nga soxla poñi